salaamaaleykum Aliou Mandione tey ñoo ngi fii ci Grand Théâtre guddi yëngal gësam bu Pape Diouf bi tey sa diggante digganteeg euh, Cheikh Sarr yaakaar naa du loo xamante ni dañ koy présenté Sénégalais yi wala ñu koy wax parce que fépp fu ñu gis Cheikh Sarr gis nañ la fa lépp lu mu takk yaa ngi ci takk ripp kon jaratul ñu lay laaj lan moo waraloon tey fii nii say tànk daanaka. Aïcha Abdou maa ngi lay ziar bu baax a baax comme ni nga ko waxee euh, daanaka wax nga wax ci jaroon ñu ñuy laaj lan moo lan lañ fi def. li ñu fiy def comme Cheikh Sarr ni nga ko waxee maak moom ni ñu mel waaye itam c'est un événement boo xamante ni c'est un événement des médias ba noppi itam c'est un événement boo xamante ni Pape Diouf di euh, suñu frère defe naa ne moom moo tax tey ñu ñëw te tey euh, euh, grand théâtre defe naa ne mosuñu fee dugg solo nii ñu solo mais li tax ñu ñëw solo nii tey dañoo bokk ci yëf yi nekk ci liggéey bi di bouger ba nga xamante ni mënuñoo sol ci yenn yëf yi moo tax defe naa ne ñu solo nii bokk na ci liy firndee ni ci liggéey bi lañ bokk jërëjëf aliment kontaan nañ bu baax ci petite interview bi ngeen ñu accordé kon euh, Pape Diouf nar naa toj fii nii tey. la ilaha illallah sans limite point sn. tey ngeen gis lu ngeen mës gis ci ci spectacle. génération dégg daaj. génération yëngal gësam. génération rakkaaju. ñëpp a ci biir. kon tey dañuy maytu suñuy noonu. yëngal gësam. ëpp na say noonu. <laughs>